du matinal jëm euh, si li nga xam ne itam ñu koy daal day li nga xam nekk moo di ruumanaat dina ko jàpp wala du nga ko daal di jàpp ci na xam nekk moo di Ousmane Sonko waaye tout d'abord da nga koy daal doxeek ak li na xam ne itam xewoon na fi nikk euh, démb mu nekkoon loo xam ne itam Sénégal yëpp tudd dunu leen ko ñett waxtu yi na xam ne itam amuñu courant courant bi di dem ak ñëw xuyit euh, kamaj alors da nga koy daal di commencé Bamba ak li nga xam nekk moo di Sénélec nag moo ko daal di biral mu nekk benn communiqué bi nga xam ne itam dem biral na ko pour daal dalal li nga xam ne moo di xelu sénégalais yi euh, jëm si boobu di li nga xam ne moo di coupure si boobu di li nga xam ne mooy communiqué mu daal jàpp ni euh, nous avons des perturbations sur notre réseau de distribution mais nos équipes font le maximum euh, pour le rétablissement dans les meilleurs délais man yi kon nag loolu daal di biral li nga xam ne moo di waa Sénélec ñu daal di jàpp ni itam Dem amour nañ ay euh, ay euh, que je si nga xamné que modi euh, courant bi nak ëpp koy tek sax est-ce que Ousmane Sonko a couper li courant bi ki nga que modi astante parce que mom itam japp na ni lu nu mel amul dara ak lu ak ki nga que Ousmane Sonko ay rek. si réseau de distribution yi boral nak dañuy des ay aussi. mu daal di coïncider euh, juste après li na xam nekk moo di la sortie bu Ousmane Sonko nag démb nag euh, doon waxal opinion nationale ak internationale bi si yéen ay débat yi nga xam ni dafa daal di soxal li nga xam nekk moo di askan wi moom itam seen rek précision yooyu la si daal di indi mu di jàpp ni euh, ba tey jii. lu jëm si mbiru Ousmane Sonko nag seen yoon nekku si te itam tombé waral ay gaaf dañuy faral di ko daal di wax que ni boobu dañ nga xam ne que moo di coupure d'électricité dafa daal di tombeel ak li nga xam ne rek moo di jafe-jafe yi nga xam itam am nañ ko. Euh, si wàllu ko courant gi ba waral nag démb seen ay équipe demoon neen sur place donte sax yëf yi euh, rétabliwul de manière définitive parce que aussi ay coupure mi nga am un peu partout waaye ñi ngi def seen maximum ñeex yëf yi nag daal di ñëwaat euh, si ordre bi nga xamni te mom len daal di won ci si fourni euh, euh, si fourniture jëm ci walu courant fi ci Sénégal exactement ma ni kon démb nag Sénégal rek loola biral waye tam mi daal japp ni amuñu dal yi daal di ak ay affaire politique parce que si dem nak bay fi daal amé amee ñu sëpp nag si à travers seen ay poste japp ne ni tam wala daal di mëna a ay gëtt fa nga xamni tam itam mooy daan kër gi jëm ci éventuelle arrestation bu ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko mu daal nek le leader de Pastef ma ni kon li nga di Senelec nag indi na si ay tontu euh, jëm si tuuma yi nga xam ni itam euh, jàpp nañ ñu koy daal teg seenu ko kaw euh, jëm si complice bi nga xam ni itam ñu koy daal amal ak arrestation Ousmane Sonko donc pour dire amuñ dal li nga xam ni ñu koy daal di laale ak boobu de arrestation si communiqué bi nga xam ni itam biral nañ ko di itam ñoom itam biral nañ presque trois communiqué jëm si fourniture courant yi nga xam ni itam moo daal di tag naka démb fii Sénégal waaye itam partout à travers le pays alors dañuy daal di wéyal exactement euh, li nga xam ni itam moo daal di amoon su jullit tabaski bi yéen ko daal di euh, gisandoo man ni kon li nga xam ni itam moo xewoon sa village boobu ñu naan li nga xam nekk euh, moo di Bari Sine Bari Sine nag man ni kon imam bi nga xam ni itam bëggoon na ko fa daal di fàtt benn tentative d' assassinat que bëggoon def nag turam ki nga xam nekk moo di Deytine Deytine lay daal di wuyoo man ni kon moom Deytine sax suñuy xool. Euh, dafa daal di am feebaru xel maanaam euh, lépp nag euh, naan siwul moom ki na xam ne moo di déytin na man ni kon déytin nag moom dafa daal di jóge fa nga xam ni it mooy saanu ko dalal xel naka noonu la daal day génnee amal boobu dañu nga xam que moo di acte donc jàppale ni it moom Ndeye Tine mi ngi woon fa nga xam ni it moo di si wàllu dalarkal daal di koy topp daal di koy euh, suivre euh, jëm si wàllu wunu mel ma ni kon ba tey ki nga xam que moo di Ndeye Tine nag moo daal di amal loolu day jëm si li nga xam nekk moo di imam ba euh, bëggoon ko daal di li nga xam que moo di fat waaye itam moom itam ay enquête wala comme ça ay enquête yi nga xam ne itam def nañ ko si ki nga xam que moo di ko bëggoon daal di fat ki nga xam que moo di imam bi ban daal di xoolee xam ne nii ki nga xam a moo di Détine nag ba mu daal di échoué bag ba tey àndul toog li nga xam ne moo di sago maanaam dafa doon def bag li nga xam ne moo di lajj waaye boobu ba tey ki nga xam ne moo di déetin àndul toog li nga xam ne moo di sagoom ak yi nga xam ne itam mu ngi koy daal di posé man ni kon nag moom itam jàpp ne ni moom imam bi jotewuñu dara ay wala comme sax ay li nga xam ne moo di yenn si ay trouble am jël li nga xam ne moo di paak bëggoon ko daal di fàtt imam boobu di li nga xam ne moo di Mame Balla Mbacké mu doon jiite li na xam ne moo di julli it gi fa nga xam ne itam mu ko Mbacké Bary Sine ma kon nak euh, li nga xam ne moo di ci kaneen suñu gën yato euh, si ki nga xam ne moo di waa ndax jàpp ne dafa am feebaru li nga xam ne moo xel te itam euh, dafa doon sogo a jógee fa nga xam itam moy zoanu ko dalal xel donc il a besoin daal kay taxawu si wàllu wunu mel ma kon momi itam ñu koy daal dédouané jëm li nga xam itam bëggoon na ko daal di abattre si bobu de li nga xam ne moo imam fa nga xam itam modi di sédduwaanu ko sa diwaanuk sa diwaanuk li nga xam nekk moo di Bari Sine mu nekk village bi na xam ni itam ngi nekk sa région bu li nga xam nekk moo di Fatick ma ni kon booba de acte nag mu daa day jaaxaloon sénégalais yu bëri nag waaye jàppale ni itam ay atam daal di toll si ñaar fukk kase suñuy xool nag mu nekkoon xale bu ndaw waaye itam moom itam tant woon na daal di xaru euh, yëf yi dafa mujjee daal di échappé laata muy ñëw bu bëgg daal di fàtt ki na xam nekk moo di booba de li nga xam nekk moo di imam donc jamono ji nag mi ngi si loxoy li nga xam nekk moo di yoon ak wàllu yoonal li ñu daal di bëgg rek mooy am amal li nga xam ne que moo di liggéey bi si moom ndax képp ki nga xam ni itam sa xel mi ngi si wàllu wunu mel nga daal ko siy génnee euh, jëm si tentative euh, d' assassinat mbokk spectateurs yi dañuy daal di wëyal wax si wàllu ko politique ak ki nga xam ne que moo di génn teef Ousmane Sonko naka démb nag alors dañuy daal di si gu bu li nga xam ne moo di le quotidien daal di ko exactement le quotidien nag ak li nga xam ne moo di appel à l' insurrection euh, Sonko demande au peuple de terminer le travail ma ni kon moom li nga xam ne moo di le quotidien daal di koy tuddee appel à l' manikon ma ni kon ki nga xam moo di Ousmane Sonko na mi ngi daal di waas kan waa sekoñ daal di jeexal li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne itam sóoboo nañ ko euh, seen diggante ki nga xam ne moo di euh, président euh, Macky Sall parce que dafa parce que dafa daal di jàpp ni jamono ji nag Macky Sall le quotidien moo si daal dikk si mu gën yaatoo que ni dafa daal di jàpp ni ki nga xam ne moo di Macky Sall li mu bëgg nag mooy daal di koy li nga xam ne moo di faagal si élection présidentielle pour 2024 bool nag ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko mi ngi daal di woo li nga xam ne moo di askan wi à ce que ñu daal di li nga xam ne moo di résister donc mom li nga xamné que modi euh, Ousmane Sonko nak dem nak génnoon na di wax ak li nga xamné que modi askan wi waye tam mi ngi daal di alerter si son euh, éventuelle arrestation parce que japp ne ni nag arrestation suy am ki nga xamné que modi président Macky Sall mo koy daal di parce que moom itam euh, Ousmane Sonko japp na ni mësta arranger ki nga xamné que modi Macky Sall boral c'est su nek mu ngi koy def ne si fi itam daal di koy li nga xam nekk moo éliminé politiquement man ni kon ki nga xamné que modi Ousmane Sonko cadre yooyu la daal di biral waye tam mi ngi daal di askan wi

euh, euh, Macky euh, Sall euh, acte sa décision ma kon Macky Sall nak war na di war meuna wax tey ji li nga xamne nekk modi taxawayam dina ko def du ko def ñeel li nga xamne nekk ñettelu mandam mandaam euh, yi nga xamni te mo moo war di nek choix yi nga xamni ni président Macky Sall war na ko war na ko war mën def manam ñeexital geek lepp rek yëglekaay bi tekk na mi ministre gu njëkk bu li nga xamne nekk modi le quotidien ba tey le quotidien li da desir mu daal exactement ak la cité imbécile maniko ni cité bi na xamni tam mo moo ci si ko euh, zone de euh, captage maniko lepp rek leen daal di li na xamne ne modi dindi da day tollu ci 3000 personnes nak ña nga fa amuñu fu dekk dëkk ndaxte euh, cité bobu li nga xam ne moo cité imbécile nak lepp leen fay da di li na xamne ne modi dindi mi ngi si xët gu njëkk bi li nga xam ne moo di le quotidien dikkaat na si mu gën ya yaatoo par rapport ak bobu di nga xam ne moo cité ñu daal di jàpp ni dañ fa dekké nak jaaduwul occupation illégale il si exactement itam si xët gu njëkk bu la tribune exactement la tribune nak ak li nga xam ne Modi di dangereux de Macky euh, des milices euh, d'autodéfense euh, par les maires manikon ki nga xam ne moo Macky Sall nag daloon nak li nga xam ne moo di maire yi fa nga xam ni it mooy président République bu Sénégal ma ni na maire nag ñu daal di taxaw temm daal li nga xam ne yóbbu président Macky Sall Mourad am ñettelu mandat fi si Sénégal man ni kon ki nga xam nekk moo Seydi Gassama mi ngi daal di li nga xam nekk moo di en garde yoy da li nga xam nekk moo maire parce que japp na ni itam loolu sen waxe te itam wone wara mëna deppok ak constitution bi li nga xam ne itam moom la daal di diglé jëm ci ñettelu candidature président Macky Sall la tribune kan suñu mu gëna yato euh, jëm ci walu wunu mel euh, way itam euh, président Macky Sall pétition bi nga xam ne itam ñoom itam mairie lance né ko Mourad di nek li nga xam nekk moo euh, am troisième mandat way japp ni itam religieux aussi ñom itam lancé pétition ni président Macky Sall am li nga mandat parce que japp ne nag firmi réew di toll jëm pétrole le gaz bi mais nous président rek ko nous li nga ko modi wëyel daal di mëna exactement spectateurs si leneen bokk na eh, si ki nga xam ne mooy Bougane Gueye mu daal addu daal jëm ci ëmmat yi nga xam ni mi ngi am fa nga xam ni itam ko non tard manikon les forces occultes de Macky sont tel eh, déportées en France manikon nak ci eh, nag France jamono di nak ma ngay daal yëngu ay ëmbat mo fa daal di am ki nga xam ne moo di moom Bougane Gueye Dany daal di laaj ma xam forces occultes yi nga xam ni itam ñu ko doon wax fi Sénégal yobbu ñu ko fa nga xam ni itam ko France mi ngi sëral gu njëkk bu la tribune ndax japp ndax japp ne nak forces occultes yi nga xam ni itam ñu ko doon wax fi Sénégal nak de Sénégal amu force occulte franchement moo force occulte parce que de jamono dit nak manifestation yi métti na lool li nga xam que modi way tak takk ak li nga xam que modi askan wa fa nga xam ne itam zoanu France bu gën a dani mu japp ni mo Macky Sall force occulte yi xamni tam ne nako doon wax man ni kon force occulte yóbbu nañ ko fa nga xam ne itam mooy euh, France

si yooyu dañu xam nekk moo di élection te itam euh, bëgg moo di Ousmane Sonko bañ a daal di bokk si yooyu day miir xam nekk mooy leader de Pastef mu li ko a jug mooy daal di xam nekk moo di xañ yooyu de li nga xam nekk moo kon ki nga xam nekk moo di euh, Ousmane Sonko mu daal di jàpp ni di tombé si boobu de piège maanaam su di daanoo si boobu de li nga xam nekk moo di ndig sërëx jàppale ni itam fi ak ans si kanam ñoom ñooy wër euh, di daal di li nga xam nekk

yegg si exactement itam troisième mandat bu président Macky Sall ba tey xët gu njëkk bu yor yor mu daal dikk exactement ce que le faux suspense de Macky Sall a déjà coûté au Sénégal ma ni kon li nga xam ne itam moom suspense bi daal di jaral li nga xam que mu di réew mi ëmbat nag saa su amee ay manifestation ak ay yëngu-yëngal troisième mandat bokk na sa la koy daal di waral réew mi nag di daal di yàqu président Macky Sall boobu ba tey bëgg a daal di gàddaloo li nga xam ne suspense bi ma ni suspense nag suñ su jugul dina daal di gën a li nga xam que mu di réew mi moom itam yor yor dikkaat ne suñu gën a plateau jëm si jafe-jafe yi nga xamni euh, boobu de suspense bu président Macky Sall yëngalee nu ko li nga xam que modi réew mi euh, ginnaaw yooyu wax di 24 heures mu daal exactement 24 heures ak discours à la nation sur le ni sur sa candidature ou non euh, à la présidentielle de 2024 Macky Sall face à son histoire ma ni kon Macky Sall dina dal di jëñoo li nga xamné nekk moo histoire am ma xam Macky Sall day daal di dugg si histoire wa wala déet jëm euh, si nga xamné nekk moo ñettal candidature yi nga xamni tam itam boobu ba tey ñu koy daal di layam layamee fii si réew mi way lu dal di tollu si nga xamné nekk moo 500 maires nak ñoo dal di nangu euh, pour président Macky Sall mu daal dépose li nga xamné nekk moo candidature am si atub li nga xamné nekk moo 2007 japp li nga xamné nekk mooy 2008 nak ma ni li nga xamné nekk moo gouvernement bi fa nga xamni tam zone Assemblée nationale finale est-ce piège ba nekk fa jëm mu daal di jox li nga xam nekk moo di ñetteelu mandat président Macky Sall en tout cas moom Macky Sall nag mooy xool dina dugg histoire wala daal dugg si histoire jëm si laaj bi na xam ni itam laaj na ko ko ma ni ko ñoom Treize Faye Diouf ak ñenn ñi na xam ni itam ñoo daal di faree si ko benn bokk yaakaar daal di jàpp ni. Mon président Macky Sall date déposé le bob de l'armée que maudit mandat di wax li nga di cédé à la pression te itam ñoom ñu di cédé li nga euh, pression euh, pression li nga opposition bi mi ngi sëxal gu 24 heures Bataille 24 heures li ñu m'a dit exactement à li nga euh, que chronique Mamadou Alberti et comme tous les lundis ci xët 24 heures au Mural le tournant fatidique de la seconde alternance ma ni alternance dina daal di amaat Sénégal ginnaaw alternance bu li nga xamné que moy 2000 fi ci réew mi mané kon ki nga xamné que moo di Mamadou Sy Albert mi ngi daal di dànkaafu ki nga xamné que moo Macky Sall euh, jëm la nga xam ni itam euh, jàpp ne ni mom la daal di bëgg ci bobu di nga xamné que moo candidature yeeg si exactement itam chers téléspectateurs euh, ba léegi xët gu njëkk bu 24 heures ak ki nga xamné que moo Ousmane Sonko mu daal di jàpp ni Macky ne peut pas m'arrêter mu daal japp ni Macky Sall nak mënu ko daal di arrêté benn yoon moom ki nga xamné que moo Ousmane Sonko euh, autant, euh, excusez-moi,